nii fi nga xamante moo di rëbës euh, ñuy xaar détenu yi nga xamante ni dañ leen a war a génne ci noonu nag laay gis sama benn yaay bu nekk sama dëkkandoo aussi tamit di ko nuyu Laay Maxtaar Laay Alassane ak seen i di ko masaw mu mel ni moom kenn ci ay doomam aussi tamit daf ci bokk Laay Maxtaar maa ngi lay ziar. ok maa ngi lay ziar Laay Maxtaar. yàlla maa ngi ci jàmm bu baax. yaay tey ñu ñëw fekk la fi mën nañu xam lu waral sa teewaay fii. waaw ah, sama doom lañ fi téye ko fi téye woon ba léegi mhm. le ba léegi. ba léegi waaw. tey dafa bokk ci lim bi war a génn. ah dama yaakaar rek mu ñëw dama yaakaar rek kenn waxuma day génn moom mais dama yaakaar rek nga yaay ak doom rek nga toog 8 mois gisoo sa doom ci doom joo xamante ni macha allah defu diggul si dara caaxaan du bàndi du béy fa liggéey rek. xam naa yu fi xale jàpp ko mu dugg si rek xaw ma dugg na ci xaw ma dugg ci man je ne pas mais daal yàlla daal destin la woon. yàlla moo ko dogal ma gëm ci yàlla lool nag ànd ceeg yàlla di ñaan ñi fi nekk ñëpp yàlla génne leen bari na ñoo xamante ni ñu ngi fi defuñu dara yàlla na yàlla génne ñëpp barke sëy naa limaama yaa ngi wax léegi diggante yaay ak doom nga toog pendant diir bu yàgg gisoo sa doom yaay nag nga koy dundee wallaay métti ak a métti métti torop sax métti métti du si nekk moom kenn mënu la ko wax mais boo ko seetee ñi nga xam ne seen doom dafa dee rek na xaw a sedd ñi nga xamante ni tey ba ñu gisee seen i doom ñoo ko fekkee na xaw a sedd sant yàlla rek sant yàlla rek soo doon lan lañ la wax ne moom lañ koy toppee. manifester manifester. fu bokkoon ci manifester xaw ma bokk na ci xaw ma bokk ci daal man xaw ma mais moom daal su ma ko waxee dafa ma ne yaay man damay génn tëyër ma sa moom ci marché bi lay ñëwee dama génn rek di dem di di di ñibbi ñu jàpp ma waaw loolu laa mën a jàpp. waaw boobu tey tegoo sa doom bët. xanaa ñëw visite rek mu ñëwee visite moom dinaa koy gis. waaw su ma ñëwee aussi dinaa koy gis. maman yi day métti loolu yaay booy. métti na trop métti bi kay moom foo ko takk rek passé na ko mais li ma la wax rek boo ko xoolee si nga xam ne seen i doom dafa dee dina sedd ñi nga xamante ni dootuñ gis seen doom bari ko dee moo ñaay élève bi ñu ci rey élève boo xam ne avenir la ñu rey ko kooku xam nga gisatul doomam dootuñu gis mais yow nag dan la jox heure visite mardi bu ne nga ñëw visiter ko di nga gis di nga wax ak moom boo gis seetee foofu rek di nga sant yàlla waaw teg rek si loxoy yàlla rek. waaw mën nga ñu waxoon sa doom jooju noonu ban taxawaay la amoon ci xanaa nekk sa xale bu jàmbaare xale bu jàmbaare xale moo xam dërëm bu mu am yaayam ak baayam la ko indil bëri kaf bëri fas fu mu nekk kenn du ngepp moom daal xale la boo xam ne xaw ma ci moom caaxaan wax dëgg yàlla man maay yaayam mais xaw ma ci moom yi fi caaxaan. fas nag mën na koo dugal ci lu nekk moom fas moom mën na koo dugal ci lu nekk mais du xale boo xam ne da bu fekkee xale bu bandi la moom wala xale boo xam ne dama ko xamal dara kon du ma jaral lii mais depuis ba mu tegee tànkam ba léegi fii ba suñu jonn yàlla tey gis mardi bu jot damay ñëw mardi bu jot damay ñëw seet ko su ma ñëwulee sama tan tantam dina ko seet fii mu métti lool parce que yaa ngi koy wax sa doom la am fu mu la taxawoon doon la ne daan na la ko apporté ah am bu am yoo war ko mën a a teg moroomu doomu aadama ah, am na midi yoo xamante ni doomu aadama waru ko mën a teg moroomu doomu aadama waaye libre nañ mu ko ci loxoy yàlla te xam destin la rek lu waroon a am la lu waroon a am moom am foofu rek laa ko teg destin la rek lan ngay wax yaay yi nga xam ne aussi tamit seen doom daf cee nekk. rek sant yàlla rek comme que toog na am na huit mois di bëgg dëgg neuf mois six juin la woon ba tey ñaata quinze mars ba tey quinze quinze lan. février février mu nga nekk sa neuf mois. sant yàlla rek comme que ñu ngi toog tey ñu naan tey suba ak ñëpp dina leen bàyyi nan toog rek taaxeeru rek sant yàlla rek te ñaan yàlla képp ku fa nekk rek yàlla génn la fa te yàlla bu fa kenn duggati ci werte Seydina lan nga wax xale yi aussi tamit ñu am ñu ñu muus tuuti daal ñu muus tuuti nanu muus tuuti parce que suñu bokk politiciens yi moom da yàlla xam doy na daal tey liñ ci sonne nii kenn xamula boo liggéey ka ngay xeexal tamit bu ca bu ci amee dara amaana du la am man man daal condamné naa daal lii waaw condamné naa lii comme que ku nekk yow li ngay liggéey yow yaa koy may sa bopp yow boo am lekkee yow yaa utali sa bopp boo naanee yaa utali sa bopp kon am na yoo xamante ni warul ci dugg. est-ce que tamit jàpp ñu ni tamit des jàppale seen yaay wala seen papa mooy tax ñu jàpp ne dëkk bi dafa mel. loolu moo leen ci dugal mais papa yaay ji tamit ñun comprendre naan xam nañ jamono bi ni mu mel ñun xam nan jamono bi ni mu mel. yaay lan yoo xam duñ forcé kenn ci demal uti ñëw jox nañu loolu moom yàlla séddoo ma ko du ma uti du ma forcé waaw déedéet du ma forcé kenn demal uti gis nga doomu aadama lii sa wërsëg allah kulli àllin bala ngaa dee yàlla dina la jox lii sa wërsëg bu doon da ngaa tëdd feebar yàlla dina indi sa wërsëg ñëw fekk fa nga feebar mu teg la ka kon yaay yi tamit ni bàyyi pression ci doom yi dangaa war a tekki dangaa war a def tekki yàlla moo ko yor loolu yaa ngi wax lu solo tekki yàlla moo ko yor wërsëg yàlla moo ko yor yàlla mooy maye boo amee dund ak wér lu ne dara jomb la mais teg sa doom pression boo xam ne bu ëllëgee day dugg ci loo xamante ni ah man loolu man man ànduma ci loolu. parce que yaay yu bari tamit ñooy teg seen doom yenn pression yi ba doo mën a xëy gi sa yaay lekkul naanul ba pare di la laaj aussi tamit yow boo dee xale après mën ngaa gis dara romb rek nga ne ma dugg ci. déedéet man damay yor sama doom ba mu am vingt et un te damay yëkkati ndekki di ko yow yaay dem ba ni ma yaay bu ma joxati ndekki lépp ci beñ ngay dem di uti loo xamante ni nii tey boo ko amee dafay indi problème loolu moo tax ma man boog man sama doom man teguma benn doom pression boo xamante ni danga daf lay dugal ci lenn ëllëg parce que yàlla mooy maye boo bëggee kut koo kut damaa war a am kut koo kut dangaa war a am kooku yàlla tegu ko kenn boo ko defee sax di nga dugal sa doom ci loo xamante ni bu ëllëgee problème lay indi xale danga koy may danga koy may batmaa danga koy may batmaa bàyyi ko mu xale ñëpp a jàmbaare xale boo xar xolam rek teral yaayam ak baayam mu nekk ci biir xolam mbër yi dañ koy faral di wax mais xale yi nga xamante nekku nekkuñu mbër ñoom ñoo ko gën a bëgg koo ci gis teral yaayam ak baayam moo nekk ci biir xolam mais loolu yëpp dogalu suñu borom la kenn ku ci nekk yal na la yàlla may li nga bëgg ci say waajur yàlla defal la wërsëg ba nga def ko di barke Seydina Muhammad. sa doom nan la tudd. Abdoulaye Abdoulaye la tudd. ñaata at la am. am na 27 ans. am na 27 ans waaw. Euh, donc yaa ngi dem gisagoo ko est-ce que doo xaar tamit yaay booy. bilaay xoolal ñu ngi daa xaate man xam nga yii mag xaju ci baal rek ma dem moom bu ñëwee. parce que caare yi leen di caare géej rek leen dëkk bu ñëwee dina ñëwal boppam bu ñëwee dina waa ah, kay merci beaucoup yàlla na ko yàlla nit ci barke Seydina Limaam mi ñu bokk yàlla na ko yàlla génne parce que li nga wax rek moo ci nekk xale yi daanaka euh, tey danga nga yeewu ci kër bëgg dimbali yaay bëgg a dimbali papa mooy tax ngay dund ci lenn waaye tamit nañ xam ne li nga wax rek moo ci nekk yaay nañu bàyyi di teg xale yi pression dangaa war a am dangaa war a indi parce que booy xool xale yi tamit yu bari loolu moo leen ci dugal. Mhm. Mhm. xale kenn du ko teg pression xale kenn du ko teg pression ba ko tegee pression sàccaloo nga ko fenloo nga ko sàccaloo nga ko yu fi jàmbur mi ngi dugg ci lu nga xamante ni nii ndax xale léeg-léeg mu indi dërëm boo xam dala koy jox yow xooloo sa xaalis bi ñu lay jox fu mu ko jëlee te loolu surtout loolu lu jar xool la sa doom am na doom bu góor surtout. man jamono bii ma toll nii doom bu góor surtout am na sama xaaj boo ma jël dinaa la lijjanti xaaj bi nga ma jox foo ko jëlee toujours gu jot dama leen di gëmloo ni man teguma kenn pression teguma kenn leen leen li ma yàlla mi ngi may doole maa ngi liggéey macha allah li ma liggéey dinañ ko bokk bu ëllëgee bu leen yàlla mayee ngeen jël revanche loolu daal waaw merci beaucoup yal yàlla baax jërëjëf